Euh, finalement euh, wax si li nga xamné ne la gisee euh, projet bi wala sax li nga xamné ne nek studio Bassirou Diomaye mom japp na carrément deuk que ko si ay jooy ak it ay jambat mais si may li nga xamné ne nek nit ñi espoir par rapport à ces propos d'Amadou Ba ban jangat nga ci def surtout si moment bi nga xamné ne ñu ngi deugmal ci ay élections législatives. ouais c'est normal motax xam nga candidat Mm-hmm. nekk tëdd li si jàmm ak njëriñ. Mm-hmm. kooku tey jii bu génnee wax war naa wax. c'est normal yaa ngi dégg Ousmane Sonko nee dina wax suba. Mm-hmm. waa sàmm sa kàddu dinañ def seen événement tey si ngoon. di nga déggaat ñeneen ak ñeneen ñu génnaat wax donc c'est normal. kaddu Amadou Ba da ngay jàpp ne opposant la woon dafay wax. kenn mënu woon xalaat mu génn di tagg Ousmane Sonko wala muy tagg Jomaay. donc loolu kenn mënu ko woon a xaar donc c'est un opposant qui est dans son rôle muy opposé wu. sànni xeer. comme ni ñu ko waxee kujje wujju mhm. wujju moom foo ko fekk moom day wax loo xam ne arrangé wul keneen ki mm. maintenant léegi nag euh, tout dépend ci ni ñu lecture yi ñu ciy def parce que mm. dañuy fàttaliku ne ba léegi moom bokk na si ñoom tuumaan nañ leen te tontoogul mm-hmm. nangu cee sori nangu cee wax mm. parce que dañoo boole si moom ak Abdoulaye Daouda Diallo ak Macky Sall ne dañoo maquiller ay chiffre économie bi waaw ba léegi àddu ci yëyul yàbbi ci wax na xaw na sànni ay pikk saa et là def ni dem mm-hmm. mais ba léegi indi su leer et on espère que ci biir campagne dina ci indi leer. pour nit ñi daal ci gën a mu teggi tuuma. wala mu wax li nga xamante ne tuumaal nañ ko. mais quant à yeneen discours yi mu def yooyu ci cadre politique bi la et puis dañ koy dañ ko dañ ko koy nangul quoi c' est tout à fait normal. c'est tout à fait normal. Koumba mm-hmm. euh, euh, euh, Gadjo ñëw na Marisa aussi ñëw nañ si waxtaan Moustapha je te laisse introduire avec Imam <laughs> Moustapha muy njëkk a introduire après man ma ñëw ak sama question voilà imam ñu dugg ci question yi imam ñu dugg ci question yi nga xam ne yéen yi waajal euh, suba benn événement bu mag lañ ko mën tuddee méga meeting. Mhm. njàpp xaw na brosser question bu njëkk bi. ñu mhm. bëri dañ doon def euh, ne li am fële ci noor bi. Mhm. ak li ngeen di organiser est-ce que c'est pas gênant mu am benn moment boo xam ne ñu ngi dund benn situation bu metti ci ay doomu réew ngeen di woote rencontre loolu mooy lu jiitu. beneen mbir mi participation MODAP naka lay dem parce que gars yi nee nañ am na lu bëri changé parce que mobilisation Ndiaga Ndiaye rek lañ fi nar a gis ah man ma indi sama ñetti Ndiaga Ndiaye ñàpp indi indi ñetti Ndiaga Ndiaye am Dakar Arena fees. te te instant yi ma ñoom Kumba Gadio ak ñoom parce que man gis naa ne kii ku jege ku nekk Pastef sax fi ñu may la 5 millions denc ko pour su nga jëlee ci oto dem man bu ma gisoon ku bëgg ah. te amul lu mu paase te ma mën koo paase la ma koy paasal su ma sama oto gis xale bu bëgg a dem. nga yóbbaale ko su may cotiser du ma cotiser sama bopp mën naa cotiser sax sama maam yi gaañu yu yàgg ya euh, où est le problème un parti politique ci Sénégal leader bi da daan dem lijjanti xaalis bu illicite. Hmm. dajale xale yi di leen jënd di leen jëndal ay t-shirt di leen jox ay sandwich. Hmm. di fay ay carte ñi nekk ci base bi di xëccoo lii lañ ma jox joxuñu ma lii. loolu hmm. lañ fi daan gis. Hmm. Pastef ñëw indi engagement bu bees doxin wu bees doxin woo xam ni bu mënul firndeel maanaam bu la bu mëntul firndeel patriotisme. Hmm. ak don de soi pour la patrie. su fekkee mënu koo firndeel dara mënu ko mënu koo firndeel parce que nit ñaar la am. jëmmam ak alalam. ñaar la nit ki am pour wane ni man lii bokk naa ci. donc ñu woote meeting meeting boo xam ni da ngay indi 1000 francs ni lii dama ko bokke ci campagne yi. Mhm. dama ni la loolu waxuma la Afrique waaye leçon la pour le monde Adina bi yëpp dañ ko war a copier jàng ko ci Pastef. Mhm. pour lan engagement politique warul nekk looy def ñu di la fay. warul nekk lu ñu lay influencer warul nekk lu ñu lay lu ñu lay lu ñu lay jël nga nekk mercenaire. imaam nga baal ma ah, nga baal ma foofu rek nga baal ma rek ñu ñu bëri ñu tamit. Mm-hmm. dëkk bi ni mu woowee ngeen di laaj booy ñaar téeméer ñaar téeméer kalaasu njaab gi ngeen di laaj junni wala yoon ak yooyu. tamit est-ce que njaab ñaata ngay joxe yow doo joxe waaw xam nga doo joxe. am seen ay caisse noire ay kii ñu ne. Ousmane Sonko xam nga dafa Ousmane Sonko dafa njëkk a wax leen. non dafa ñu napp Ousmane Sonko li muy def nii mm-hmm. sommes nek ci biti Pastef mm. la bes ci mais ñun ñi nek ci biir Pastef besul ci ñun ñun xam nañu Sonko réunion politique sax ci siège Pastef les moyens de l'État amul ben ministre kenn ku ñuy mm. siège Pastef ngay di les moyens de l'État di vous recevoir en tant que mouvement wala ben section wala nangam de le recevoir primature siège je la le recevoir parce qu'il s'agit de la politique mm. bu ñu fàtte Ousmane Sonko mooy président parti Passif. c'est son travail il n'est pas président loolu le nañ ko ba am ko Le mot may tey Diomaye dem fële des questions de la République nga xam ni réew mi moo ko moom politique. jotewul dara ak politique ab sénégalais a un problème Qui est le président du parti Passif. donc dafa am élan boo loo bañ bañ euh, Ousmane loo bañ bañ Pastef nag nga nangul ñu yenn. Mm-hmm. dañoo innové lu bees ci politique bu Sénégal. Mm-hmm. bokk na ci yow mi engagé wu militant bi nga financé sa engagement politique. Mm-hmm. waxum waxuñu ne Ousmane Sonko tiimul ay ay fonds politique ak ay kees nanga mën na koo jël comme ni ko gaa ñi jële mais su fekkee ñun dañu dañu dañu dem pacte ak réew mi. ni alalu réew mi duñ ko laal lu dul ci soxlay réew mi alalu réew mi buñ ko dee jëfandikoo dañ koy soxlaa ci ligne budgétaire yi nga xam ni moom la ñu teg si sant suñu jógee nag ñun ni dañuy financer suñu campagne damaa defe ni loolu c'est à saluer xam nga bu dee Pastef gu yàggee sax mën nga ko comprendre avant le avant avant avant avant avant avant nu mu tuddee les élections Pastef googu da ngay jàpp nit ñi dañoo amul di wuti mm-hmm. mais ki am ba pare bàyyi fi li mu am manona a sàcc manona on a manona dandal dandalul muni day and ak wuti lo xamni ni dañ koy dañ koy dañ koy politique mm-hmm. ni bu fi Sénégal mm-hmm. donc c'est à un ci Une meeting la dañuy woté meeting am nañu droit nak dajalé un troupe waxtaan ak ci lan def pour changer ce pays lan lañu def

ñenn ñi nañ jéem a ñëw ñenn ñi euh, dem recevoir euh, président Diomaye recevoir leen. Mhm. pour dire ñun partout ci biir Sénégal fu ñu mën a nekk lu ñu man ci mobilisation lu ñu man ci wax ak nit ñi te mobilisation Modap nag moo ëpp doole ci mobilisation yi. waaye Modap. waaw xam nga lu ko waral. ñun foo leen taxawee ci liste yi eh, imam waa liste yi ñu ngi ci biir. vous êtes euh, Omar Bamba Diop est candidat. Euh, ñaata Imaam Dramé seen xarit. waaw Imaam moom la moom waaw. ak yow tamit suñu xarit. man man du ma candidat. yow yow yow am nga ba yow cër ne la du bi bi may ñàkk nekk candidat cër kenn joxuma ñun xoolal bàyyi sa baat yooyu seen bàyyi baatu xew yooyu bàyyi leen ko <laughs> ñu nekk ñu ci partage de gato ah Imaam jox na dañ ñoo jox quatre dañ ñoo jox bureau politique daf ñoo jox quatre candidats ñu war leen a tànn. oui. ñu daje siège. man ma wax sama message. Mm. ci bureau département bu nekk ma ni leen. Mm. membre MODAP bokk mouvement bokk ci département am nga droit postuler wu ci département bi. Mm. dem leen postuler wu ku am chance dugg ci département nga def ko. Mm-hmm. ñi ko amul nag bii bi nga xam ni bureau national bi ñoo ko ñoom lañ ko jox. ñu war a tànn ci biir cadre bureau national ma convoqué leen ku ñëwul yaa ñëwul.

ok léegi nag yéen ñi kenn ku ci ne am na droit nekk candidat. Mm. ñaari góor ak ñaari jigéen la ñuy tànn. Mm. ku nekk candidat na ko wax ñi nekk candidat ñëpp wax ko. ñenn ñi amuñu mbooloo kenn gañewu kenn am kenn woteelu leen. ok mais ñi ñu woteel ñi ñaar ñi góor ñi jiitu. Mm. ñoom ñoo jël les deux dossiers. yi nga homme ay ko Omar Bamba Diop. Euh, place la positionné. 17 e 17e. ñun ba ba ñun ah oui parce que affaire day dem day dem parce que fi nek hein ah. uh-huh. rek dégg. Uh-huh. <laughs> Euh, ñun ñun oui imam ni lañ ko uh-huh. def ko ci jigéen ni bañ paré jour def conférence de presse léral nit ñi liñ def man kilifa yu bari ci Pastef jot naa seen message de félicitation ci defit woowu parce que c'est pas évident ñépp ko bëggoon nekk mais wax ak nit ñi lu leer def ci mandouté ba ñépp ko xamni téwon nga fa té war fa téw so soko gagné wut yow ya compétir ñu gagné la c'est vrai donc li mo am kon du la ngeen ñëw rek ne eh, diw ak diw ñoo li man dama bañoon man xolal mayon nañ ma li ñuy tuddee consensus da ngay proposé man maa bañ. joxoon nañ la carte blanche. waaw xam nga lu tax su ma ko defoon nit dana toog fële daal di ni diw de xaritam la moo tax mu tànn ko mais bu dee élection kan mooy wax bu dee élection boo voté euh, defee candi déclaré sa candidature ñu gañe la. Mm. soo amee maandu te da ngay xam ni yow yaa déclaré sa candidature ñu gañe la. Mm-hmm. te lii moo am moo daal donc bu ñu amul woon benn député tam. Mm. amuñu benn candidat mm. ñun suñu pas-pas.

Euh, ñaari conseil budgétivore yi nga xam ni xaalis bu dul jeex lañ cay def te amul mhm. tas leen ko hmm? guerre un gouvernement bu pour doxal Sénégal loolu assemblée boobu koo xam ne yaa ña ñoo doon wax wax te l'action du gouvernement dañoo am projet mhm. projet bi ay condition yi tax mu jàll mooy ñu gagné assemblée. bu loolu moo tax gëm-gëm boobu moo tax MODAP dañuy ànd comme ni ma ko waxee ci benn conférence de presse danañ dugg ci biir réew mi. Mhm. campagne lu ñu ko manee. Mhm. joxe nañ moo d'ordre bi ba pare fi toll nii sëriñ yaa ngi ci biir te seen campagne nag dafa grave. moom campagne MODAP. waaw bokkut bokkut ak campagne yu gaañ xam nga différence bi mooy. <laughs> waaw ñun suñuy représentant ci communes yi. Mhm. ñooy imam yi. ñooy prêcheurs yi. ñoo dàq communiqué. Mm-hmm. ñooy wax ci rajo communautaire yi. ñooy génn télé ñooy toog ci ci ceet yi ñooy dem ci ngénte yi ñooy dem ci dëj yi ñooy jiite jumaa dañoo am ñun dañoo am loo xam ne yàlla moo ñu ko jox mm-hmm. tey ji yow kan moo man li Imaam Dramé ban membre Pastef moo man li Imaam Dramé man dañoo waxante dëgg rek mm-hmm. jayuma ko mais Imaam Dramé rek yow ak ak ak salañ-salañam xam nga ne bu taxawee kenn ñemewu ko <laughs> dégg te ñun nag junni Imaam Dramé la am am na ñoo xam ni ña nga Casamance di làkk joolaa mm-hmm. am na ñoo xam ne ñu nga Tamba di làkk jaxanke ña nga xam ñu nga Fuuta di làkk te ñooñu ay kilifa diine lañu yoo xam ni mm-hmm. dañoo am légitimité ci wàllu diine ba pare bokk ci ñun mm-hmm. loolu moo tax ñun bu ñu joxee mot d'ordre bi dañuy suñu xel day dal parce que bu ñu mayee une semaine rek opinion bi bu nekkoon faneen sax mën nañ ko changer waxuma laa nag opinion bi nekk ñëpp pare pour jàppale projet bi. tout à fait macha allah euh, Moustapha par rapport ak méga meeting bi nga xam ne Pastef